monsieur le maire ak bokki taalibe yi turandooy Sëñ Abdu Lahat yi moo ci tuddee Sëñ Abdu Lahat ak suñu doom ak suñu jarbaat ngir dëgmal bis boo xam ne amul bis bu ko gën a rëy ci nun waaye nag di sant yàlla bu baax di ci rafet njort ndax liggéey bi ñu tàmbali tey mu mel ni nekk na mu baare ko ibtidaa yi kon rafet naa njort dina nekk may mënul intihaa yi ndax ajjuma ji ñu ko tàmbali mooy seydul ayaam yi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 poto yoo fa nekk max bi moo ne dafa poto yëpp ñu ngi dem na ci dara mat xaw ma euh, juróom fukki poto xaw ma poto nga jéem leen di jàppale ndax Touba mooy dëkk mooy dëkk kii bi nga foo def dara daal xool loolu mën a di gunge ba boo ko mënta màggal gi bu màggal gi passé nga nga jéem fa taxaw pour pour defaral la affaire kër docteur yi ñoom yi nga laaj fukki poste ak ñaar kooku nu dana am waa ji taxaw ne lépp lu fu lu noonu def bu ñu ko yokk duñ ko wàññi